ma Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay soxna. yaa di président fédération sénégalaise bi nga xam ne moo yore ñi nga xam ne dañoo amee handicap euh, tey ñuy euh, célébrer bés bi nga xam ne moom la ñu jàngaleel personne ñi nga xam ne dañoo amee handicap euh, tey boo ñu doon defal situation bi ñi amee laago fii ci Sénégal lan mooy situation bi. waaw léegi xam nga comme ni nga ko waxee. Sénégal comme ni ko àddina bi yëpp di defee mu ngi fas yéene màggal bëccëg bi nga xam ne moom lañ jagleel way laago yi ci àddina bi. ren bu soobee yàlla ñu ngi ko fas yéene defee fële ci ci Fatick. Mhm. waaye waxtaan bi ren mi ngi war a tëdd ci li ñuy wax mbirum accessibilité ak mbirum équité. Mhm. maanaam nan la ñuy def ba woylaago yi service yi nga xam ne moo fi nekk pour citoyen yëpp service yooyu ñu man leen ci suur. Mhm. ndax liy jar a fàttali soxna si mooy euh, boo xoolee Sénégal. la jàng rapport mondial sur le handicap bi nga xam ne OMS moo ko def ak banque mondiale wax nañ ne Sénégal téeméeri nit yoo fi jël euh, fukk yi ak juróom ak lu teg dañoo amee laago mm-hmm. loolu lim boobu mi ngi toll ci soriwul ñetti million ngi doomu aadama donc ñetti million ngi doomu aadama ci senegal ñoo ñoo ñoo amee laago mm-hmm. ñooñu tamit def nañ jàngat ci situation bi ko defee gis nañ ne am nañu ñeenti xeeti jafe-jafe-jafe yoo xam ne faw ñu saafara leen pour mën a may ñooñu ñu xam ne ay citoyen leen ci réew mi la ñu bokk lépp lu ñuy def ñu man cee bokk. jafe-jafe yooyu bi ci jëkk mooy lépp lu jëm ci wàllum wér yaram ñu santé wàllum appareillage daal lu jëm ci wàllu beeke yi wàllu puus-puus wàllu kaan lépp loo xam ne way laago bi da koy jëfandikoo pour mën a dem ñaareelu jafe-jafe yi mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci mbirum éducation ak formation maanaam njàng mi xam nga ñun sunu établissement yeeg suñu centre de yooyu bi ñu leen di tabax aussi sóoruñu woon toujours ne dina am ay way laa ko yoo xam ni mën nañ ko fréquenter mhm. jàngalekat yi aussi waajaluñu leen mhm. donc loolu yëpp nekk na ay jafe-jafe mhm. beneen bi ci topp mooy jafe-jafe yi ñu am pour mën a liggéey ndax xam nga bu fekkee amoo mënoo amoo possibilité nga dem école amoo possibilité nga def formation doo mën a am euh, métier te ba métier doo liggéey loolu sax boo xoolee ni yalwaan bi baree Ndakaaru ak ci dëkk yu mag yi ci biir réew mi indi bokk na ci loolu maanaam bu ñu fexe woon ba handicapé yi mën a toll ci jàng mën a jàng ñu toll ci formation mën a def formation bu ñu paree mën a am métier mën liggéey loolu buñ ñu ko defoon yalwaanu handicapé yi dina wàññeeku lu bari. Hmm. bi ci mujj mooy jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci li ñuy wax cadre de vie maanaam xam nga léegi Sénégal nekk na réew moo xam ne ñu ngi koy tabax ñu ngi defar ay pont ñu ngi defar ay autopont ñu ngi defar ay autoroute ñu ngi defar terre ñu defar BRT. loolu mu nekk mbir yoo xam ne yu am solo la waaye mbir la yoo xam ne aussi dañ koy defar pour doomu aadama yi di ko jëfandikoo mais ñu war a bàyyi xel ne ci doomu aadama yooyu koy jëfandikoo aussi am na ci ñoo xam ne dañu amee laago bu ñu koy tabax ñu mën leen cee suba yooyu jafe-jafe nag biñ koy jàngatee tax na ban ñu ne mën nañu ci indi ay saafara ci biir loi d'orientation sociale moo tax bi ñu defee loi d'orientation sociale ñu def ci ay mécanisme yoo ne buñ leen doxalee ni mu waree loolu bu jeexalul problème mu handicap yëpp tam dina ci wàññi lu bare bare bari bokk na ci mécanisme yooyu li ñuy wax carte d'égalité des chances ndax carte d'égalité des chances loi bi da ko indi jox ko ñaari liggéey ne ko yow carte bi sa liggéey bu njëkk mooy nga fexe ba képp kuy handicapé ci Sénégal mu am carte bi loolu njariñam mooy dina tax ñu xam ñaata handicapé moo ne ci réew mi ñaata jigéen lañu ñaata góor lañu ñaata silmaxa lañ ñaata ñoo ciy ñaata noonu ñoo ci dul dégg ñaata ñoo ci nekk euh, albinos et cetera dina tax ñu xam xeeti handicap yëpp xam naka lañ tëdd ci réew mi te loolu hmm. day dimbali ñuy def politique ñoo xam na la ñuy jëlee décision yi. Hmm. beneen liggéey bi loi bi sant carte bi mooy léegi nag ñu bëgg nag handicap bi bu yoree carte bi bépp service bu mu soxla rek service boobu mën a yomb ci moom moo xam transport la moo xam habitat la hmm. moo xam njàng mi la moo xam wér-gi-yaram la moo xam appareil la moo xam lu mu mën a doon. kon carte bi nekk na mbir moo xam ne mu am solo la waaye na carte bi dafa am fi mu nekk ni soxna si ñaari problème yu ci laxas. Mhm. bu njëkk bi wax naa la ne pour identifier la maanaam genre carte d'identité handicapé la. Mhm. mais booy xool carte bi ñu ngi ko lancé président de la république Macky Sall ñu koy gërëmaat moom moo defar carte bi lancé ko en deux mille quinze. deux mille quinze ak léegi juróom-ñaari at la. Mhm. ci juróom-ñaari at soixante dix mille cartes rek la ñu defar maanaam juróom-ñaari fukki junniy carte mhm. te ñi ko soxla ñi ko soxla mat nañu ñetti million mhm. kon xam nga rythme bi ñu koy defaree yeex na loolu loolu mooy premier problème deuxième problème bi mooy ñi nga xam ne sax am nañu chance am carte bi ba léegi service yooyu ñu war a jot jotaguñ ci mhm. kon dañuy jàpp ne carte bi amul njariñ alors que carte bi am na njariñ loolu moo tax fédération bi nga xam ne moo ëmb kuréelu woy laa ba yëpp def ay proposition gouvernement bi bi ci njëkk mooy carte bi ñu jël ko def ko programme national de la carte d'égalité des chances mm-hmm. bu ko defee dañ ko mën a jox jumtukaay yi ci war yëpp mm-hmm. ba service yi fépp fu nekk ci réew mi ñu la fa fekk enrôlé la defaral la sa carte mm-hmm. maanaam ñu def ko programme national beneen bi mooy xam ñu wax sànq ne handicapé problème am la problème am santé la problème am transport la problème am habitat la problème am la donc bëri ay problème loolu la ñuy wax multisectoriel wala transversal te yooyu ma lim yëpp benn bu ci nekk ministère ba ko yor bokkul ak sa morom kon problème la boo xam ne li ñuy wax multisectoriel loolu moo tax ñun ñu proposé ne président de la république comme ni mu ñu ko diggee woon ñu ngi koy ñaan mu defal ñu conseil présidentiel sur le handicap ndax bu président de la république toogee ministre yooyu ñu lim yëpp toog wër ko bu ñu ko defalee situation bi moom dina mën a jox ndigal ministre bu nekk bu ko defee la nga war a nga def ko ba bu woy laago bi yoree carte bi yëpp ne carte bi amal na ko njëriñ. Euh, si Fall kon euh, loi d'orientation sociale boobu daa mel ni njëriñ li bëriwul lool. waaw loi bi am na njëriñ baax na waaye problème bi fi mu nekk mooy nañ ko jëmmal maanaam nañ ko appliquer problème bi yëpp mooy jëmmal loi bi ñu ni loi bi lépp lu ñu waroon a waaj lu ëpp solo ci li ñu waroon waaj pour saafara problème mu yi mhm. def nañ ko ci biir loi bi moo xam autorité bi la moo xam fonds d'appui bi la moo xam carte d'égalité moo xam ci wàllu habitat moo xam ci wàllu emploi quinze pour cent donc yëpp ñu ngi ci biir loi bi problème bi kay fi mu nekk nii soxna si mooy mhm. ñu fexe jëmmal loi boobu fexe ba rek loi bi li ci nekk ñu doxal ko bu ñu ko doxalee rek mhm. jafe-jafe way laago yi dina wàññeeku. mais lan moo tax ngeen tànn euh, région bu Fatick ngir màggal foofu journée bi. waaw xam nga fédération bi kuréel euh, bu mi yëpp la. ba fàttalikoo daaw ñu ngi woon uh, usuy at yële passé dem na ñu Ndar dem nañu Thiès dem nañ ci région yu bëri ren mhm. Fatick moo aay ah, ren nag li tax ñu jël Fatick maanaam Fatick aussi dañ fa am uh, kuréelu handicapé fédération bu dëgër bu fa nekk di def liggéey bu am solo ànd ak autorités yi nekk foofu autour du gouverneur ñuy def liggéey bu rafet moo tax ñu ne ren daal ñooñu pour sargal leen pour féliciter leen manifestation dañ koy yóbbu Fatick mën a sargal autorités locales yi sargal aussi handicapé yi nekk Fatick. Euh, monsieur Fall bu ñu doon xalaat handicap euh, naka lañ ko war a naka lañ ko war a xalaatee fii ci senegal waa li nga wax noonu am na solo ndax xam nga li ñu war a njëkk a régler mooy ban gis-gis la société Sénégal am ci handicap ci laago ñaari at ci ginnaaw deux mille vingt ñun fédération ak suñu benn partenaire bi ñuy wax IDP def nañ benn étude ci biir mi yëpp ñu tudd étude boobu étude sur les normes discours. sur les norme discours et perception sur le handicap ñu seet nan la nit ñi gisee handicap handicapé yi nan lañ gisee seen bopp waaye tamit société bi nan la gisee handicapé yi institution yi nan la gisee handicapé yi mhm. kilifa yi nan lañ ko gisee jigéen ñi nan lañ ko gisee xale yi nan lañ ko gisee mhm. loolu ci dañu nekk ci lu jox processus de reconstruction ou de repenser le handicap loolu li mu ñu indil mooy gis nañ ne ba léegi am na ay xalaat yoo xam ne ak gisin gisin boo xam ne baaxul bu nit ñi am ba léegi ci handicap. Mhm. moo tax ñu taxawal benn stratégie ak suñu partenaire boobu tuddee ko repenser la handicap maanaam xalaataat handicap te repenser la handicap du dara lu dul. Mhm. ñu xam ne mbirum laago kat mbir la moo xam ne mook àddina bi ñoo ànd ba àddina bi sosoo la sosu te du jeex tànk àddina bi jeexul loolu moo tax convention bi wax ni handicap dafa bokk ci élément de la diversité humaine loolu mooy lan mooy yàlla dafa te yamalewul yàlla dafa bind ñu ñuul bind ñu xees bind ñu weex bind ñu njool bind ñu gàtt bind jigéen bind góor waaye tamit bind handicap mhm. donc ñëpp bu ñu nekkoon ay jigéen addina bi du neex ñëpp bu ñu nekkoon ay góor àddina bi du neex ñëpp bu ñu njooloon àddina bi neex pour àddina bi neex pour mu am charme faw mu am ay wuute ci suñu mhm. biir mhm. wuute yooyu nag handicap ci la bokk bu ñu ko xamee noonu rek dina yombal après Euh, dégg-dégg bi nga xam ne dinañ ko am ci handicap dañuy xam ne kon du dara mbir la moo xam ne mu war a nekk la ndax ni yàlla bindee góor ak jigéen noonu la bindee handicapé ni mu bindee ku ñuula ak ku xees noonu la bindee handicapé mm-hmm. ni mu du dëgg ni bindee ku njool ak ku gàtt noonu la bindee handicapé mu nekk donc élément de la diversité humaine bu ñu ko comprendre noonu loolu dafay yombal après liggéey bi booy defar ay politique booy defar ay programme loo mën a defar rek lu jëm ci nit ñi déjà au départ da xam ne ci biir nit ñi ay wuute am na ci ñoom te ci seen biir am na ci ñoo xam ne dañu amee laago kon lii may def nii au départ dinaa leen ci sóor bu boobaa mbir dina gën a yomb. Euh, monsieur Fall tey adduna euh, si yëpp di màggal bés bi nga xam ne moom lañ jagleel ñi am ñi amee laago euh, yow yaa jiite ñi nekk fii ci senegal ci amee laago lan mooy seen plaidoyer. waaw d'abord dama bëgg rendre hommage sargal handicapé senegal yëpp ak fu ñu mën a nekk ci senegal xam naa ni ñu ci bëri ñu ngi dund jafe-jafe waaye ñu ngi leen di di leen màggal di wax ne bis bi seen bis la lépp loo xam ne am nañ ko ci jafe-jafe ak loo xam ne war nañ ko waxtaane war nañ ko mën a génne ñu waxtaane ko di gërëm aussi autorité Sénégal yi président de la République en tête parce que gis nañ effort yi nga xam ni at yi passé nii état bi def na ko jëmale ko ci handicapé yi def na effort yu bari bien que des na encore ay jéego yu ñu war a def yu yu baree bari te ci jéego yooyu bokk na ci ñu def conseil présidentiel sur le handicap moo tax ñu ngi lancé appel à l'occasion de cette journée président de la république pour mu a taxawal conseil présidentiel sur le handicap jàpp nañ ne conseil présidentiel sur le handicap bu amee euh, président dina mën a jox ndigal ministre yi nga xam ni kenn ku ci ne la nga war a def di ko def ba handicapé bi man a am piir ma hmm. biir ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf soxna euh, di fàttali yaay président fédération sénégalaise des personnes handicapées fii ci Sénégal.